alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain mbokki jullit yi asalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi wa barakatuh daarul birr wal irshad mi ngi del sawaat ak yéen ci émission bii nga xamante ni moom mooy wajaa ramadan fan yi yépp ñu ngi nekkoon ci buntu ramadaanu gayyarani tey ñu ngi jëm ci gayyir salaatak fi ramadan gayyir salaataka fi ramadan ya abdallah muy yow jaamu yàlla bi jéemal soppi ni ngay jullee nga jéem koo defar bu fekkee danga doon jullee julli goo xamante ne ci bakkan la tege xam ngeen ni weeru koor weeru jàng alquran la weeru woor la waaye weeru julli la julli nag ci bëccëg bi am na ci ay farata ak naafi la waaye guddi gi am na ay nawafil kon góorgóorlul ba julli gi ngay julli yow jullit bi na nga xam ne julli gi amul cosaan foo ko mën a jëlee lu dul ci ki yàlla yónni ki yàlla yónni la yàlla invité mu ñëw kaw asamaan borom bi jox ko julli juróom julli juróom boobu ko borom bi jox na nga yëg ni ni nu ko war a jullee lanu koy jullee julli googu nag dangay sàmm mu nekk julli gu baax nga fexe ba nga royee ko ci ñu yonante bi sallallahu alayhi wa doon julle nga sàmm waxtu ya te nga sàmm ko bu baax fexeel ba waxtu julli yi na koy julli ci waxtoom waaye di ko jullee ca jàkka ja di julli ànd ak mbooloo ma ndax julli ci néegu yàlla tolloowul ak julli feneen fu dul néegu yàlla soo dee xale bu góor soo dee mag nga xam ni jàkka mooy sa bërëb boo war a jullee kon waxtu woo déggee noddu jaadu na nga jóg nga julli lu dul nga am ngànt te ngàntu loole nag mooy tukki walla feebar walla ne ci contrainte bu tee nga mën a julli ca waxtu wa su fekkee nekk nga ci contrainte bu tee nga mën a julli ca waxtu wa su waxtu julli jotee taxawal nga julli julli gu rafet julli gu ànd ak xol bu ubbeeku julli bu ànd ak xol bu nangu waaye julli goo xam ni dafay ànd ak sakina ak waqaar julli mbokk yi asalaatu munajaatun bayna al abdi wa rabbi julli mooy deewaa deeyaala diggante jaam bi ak boroomam kon soo bëggee julli na nga fexe ba nga yëg ne lii danga koy def ngir yàlla jéggal la sooy julli fexeel ba nga sol yére yu jot te set mat te set waaye nga yëg ni kuy julli du njëkkante kuy julli du yàkkamti bul julli mukk julli naa ci génn naa julli te génn ci boo ko defee mooy julli ga naroo mu baax waaye yëgal ni <coughs> julli gi moom danga ko war a sàmm xas ba taaqatik <coughs> nga laaj nan la ki yàlla yónni doon jullee waaye nga fexe nga jàng ay faratay julli xam ay sunnay julli yi ñu sopp julli bi ngay julli mooy nga taxaw taxawaayu kuy julli te yëg ni balaa pare bakkanam mën naa dem xam nga soo doon julli fii kàbbar ba am benn rakka ñëw ci ñaareelu rakka bi ñu dey la ne la boo sëlmalee rek mooy da ngay dee mooy julli googu da nga koy respecté da nga fexe mu rafet lool njàng ma dana rafet taxawaay ba dana yàgg rukkoo yee dana mat sujjóot ya dana mat kon góorgóorlul mbokk booy julli rukkoo yi na mat sujjóot yi na mat yaram bi na dal say góor góorlu ci boo dee jigéen góor góorgóorlu ci boo dee xale bu góor yëgal ni ki yàlla yónni muy sa soppe ku bëggoon julli la ndax xam gu mu xam ni julli day faj aajo xam gu mu xam ni julli day dindi contrainte xam gu mu xam ni julli day dindi ay jafe-jafe moo tax mu daan wax ni arix naa biha yaa bilaal bu ñu nekkee ci coono mu ne bilaal may ñu ñu noppalu mooy waxtu julli jot na bu nee bilaal may ñu ñu noppalu rek mooy noppal ñu ci julli bilaal day dem noddu bu noddee rek ñu daal di taxawal julli ndax jullit ñi xamoon nañ te lu wér la wér la boo fi amoon jafe-jafe di dox di ut ay mbir mu të ñu noddu tisbaar nga dugg ci jàkka ji kàbbar boo kàbbaree rek dangay ngay féex loolu day denc ci yow kon julli mbokk yi dafay teggi ay jafe-jafe julli day tax ku amoon lu la jaaxal boo kàbbaree julli yàlla saafaral la ko kon mbokk jullit yi weeru koor weeru julli la waxtu yi lu mel ni yoor yoor soo liggéeyiwul wala nga liggéey nga am temps góorlu ci farata yi na ci góor sunna su na nanga ci góor góorlu te nga xam ni julli danga koo war a defaroo mbokk bul jullee ni sa papa doon jullee walla nga ni naa jullee ni sama maam doon jullee walla nga ni sëriñ diw lii laa fekk ñu koy def loolu laay def déedéet diina ji kenn du ci laaj benn sëriñ kenn du ko ci laaj ndax yàlla yónniwu leen bu sëriñ bi wuuteeg ni yonante bi doon jullee kon sëriñ bi la ñuy bàyyi ñëw ci yonante bi kon soo bëggee xam lan mooy julli nanga laaj ñu wax la nu yonante bi doon jullee bokk na ci téere julli yi ñu gën a gën a rafetlu mooy sifatu salaatu nabi bu cheikh albani min at takbir ila taslim ka annaka taraha téere boobu boo ko mënee jàng jéem koo jàng mooy melokaan bi yonante bi doon jullee li tàmbalee ci ba mu kàbbaree ba ba mu sëlmalee nee na boo ko liiree day mel ni da ngaa jàkkaarloog yonante bi muy julli ndax kat moom la yàlla yanni moom la yàlla wax mu wan ñu li ñuy jullee mu ne sallu kama raaytumuni usalli ñu góor góorgóorlu ci jàngaat julli jéem koo defaraat borom kër gi na ko jéem a jàngal ay soxnaam ak i doomam mag ak rakk yi nañ ko jéem a jàngalante te xam ne julli lu am solo la wasalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi wa barakaatuhu